you mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak eh, jàmm ci seen eh, seen bi nga xam ne saa bu nekk rek yéen a ngi fi toppee la nga xam ne moo di xibaar eh, kawteef daan nay amati ki nga xam ne moo di Coura Macky mi nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko lool ci réew Sénégal moom Coura Macky itam ñëpp ràññee lool ci ka nga xam ne moo di président Sall saa bu nekk rek muy défendre ki nga xam ne moo di président Sall ba tax képp koo xam ne yëkkati nga ay kàddu daal di koy jëmee ci moom mu génn tontu la moom Coura Macky jamono gi nag ginnaaw kàddu yi nga xam ne daf koo yëkkati woon di wax ni rek bu Bassirou Diomaye fay jëlee réew mi di Sénégal nag dafay daal di xaru moom Coura Macky moo xamle woon kàddu yu ni mel di wax ne ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye bu nekkee président bu Sénégal moom day xaru waaye nag jamono ji nag la mu waxoon nag dara amu ndax kat gisuñu benn yoon mu jëfe la nga xam ne daf ko waxoon lu dul loo xam ne ak soppeeku goo xam ne daf ko daal di def jëm ci ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye di wax ne jamono ji nag daa dinay ànd ak ki nga xam ne moo di président Bassirou Diomaye Faye moom Koura Macky mi nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko lool ci défendre ki nga xam ne moo di président Sall tey jii nag daan nay ñëw ànd ak ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye ci ab vidéo boo xam ne jamono ji ñu ngi koy daal di partagé mu yëkkati ay kàddu di xam ne jamono ji nag Bassirou Diomaye Faye la àndal di wax ne rek Diomaye mooy Koura Koura mooy Diomaye mu nekk nag ab vidéo boo xam ne jamono dañ koy partagé fu nekk ci li nga xam ne euh, moo di internet bi. waaw waaw euh, le mooy Jomaay. Jomaay. mooy Macky. waaw mooy Sonko. waaw mooy Koura. waaw lii rek la yàlla def. ñun lii rek la yàlla def ah, waaw bienvenue dans l'équipe. barki rasulilaay man léegi yéen laa. bu ko kenn sonal. man ki ma bëgg ñëw na kay ma tam damay wax mooy joomaay joomaay mooy sonko. jeex na tàkk jeex na maman Koura mooy sonko sonko mooy joomaay. barki rasulilaay loolu kenn waxatu ko. je t'aime maman. <laughs>